vidéo yeeg lëj ci topp ak li nga xamante ne si nekk moom moo di élection présidentielle yi 2024 reporté bi nga xamante ne si na nag sénégalais yëpp rek ñu ngi koy coow ñu ngi dégg naan di reporté élection yi yi te li nga xamante ne si ne bu moo di da un jour rek moom moo ci des pour li nga xam moom moo di campagne bi nag daal tàmbali mooy di li nga xam si ne moom moo di élection yi kon nag ñëw ba fii ñu naan day reporté li nga xam moom moo di élection yi Sénégalais yi nag ñoom mënuñoo dégg loolu benn yoon ndax xam ne bu baax a baax moom mi nga xam si ne moom moo di Ousmane Sonko candidat bi nga xam si samp na ko nag ki nga xam ne nag moom moo di kii di.